ala kulli haal dinañ ci jéem suñu kémtalaay kàttan nag sukkandiku ci ci ni ko mawlaana cheikh ahmad tijaani radiallahu taala anhu firile sidi alil xarabi ala kulli haal sidi alil xarabi taalif na ci ab téere tuddee ko alfuyudaatu arrahmaniya fi charxi ayni arrahmati arrabbaniya mu ne ay bëbb yoo xam ne kojak yërmandeb yàlla la ci firi jëmmik yërmandeg kojak borom bi subhaanahu wa taala mu wax ci wax ju am solo ginnaaw ba mu sante yàlla julli ci yonantu bi sallallahu alayhi wa moom Sidi Alin Harazim mu ne ñu suñu sëriñ bi nga xam ne mooy Seydina Cheikh di suñu wasila benn ponk la ci ponk xam yàlla waaye kéemtaanu jamono la woon kenn la woon ci jamono te moo doon imaamu waxtam mooy ki nga xam ne ku sori jëriñu na ci moom ku jege jëriñu na ci moom mooy suñu sëriñ bii di abil abbas attijaani radiallahu taala anhu nee na yàlla nañu yàlla nàndal ci géejam gi ci maanaam ndab yi gën a mag ci ndab boole ñu <clears throat> ñu doon ay dëkkaaleem euh, mu ne nag oh, lii may wax Mawlana Cheikh Tidiane moo ko tënkee solaatu bi nga xam ne mooy jawharatul kamal muy jawharatul kamal fi madhi sayidi rijal mu ne abdaa fihi wa ajaada wa ballaga fihi wa balaga fihi gaayata almuraadi wa afsaxa an il xaqaiqi wa ajaad ne Mawlana Cheikhu Tidiane wax na ci wax ju jotal jëriñ na ci joxe na ci dayob càkkutéef waaye leeral na ci dëgg-dëgg xaqaayiq ba ñu leer nañ ne nag maa ko tuddee alfuyudaatu rahmaniya fi charhi ayn rahmati rabbani eh, lim njëkkee dafa salaatu gi nga xam ne mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa moo ko dicté wala baatu olof bi moo ko fite ki nga xam ne mooy sayduna cheikh radiallahu taala anhu waaye nag wa zakara laha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi tuddal ko ci ay jagle yu ci am bokk na ci képp ku ko jàng benn yoon bennam jàng moomu nga ko jàng dafay tolloog tasbihul aalami salaasa marat sàbbalak aalam bi ñetti yoon euh, niki noonu képp koo xam ne jàng nga ko juróom-ñaari yoon wala lu ko ëpp ruuxoog yonantu bi sallallahu dafay teew ay xulafaum dañuy teew fekk mu ngi koy tudd <clears throat> bokk na ci yooyu képp ku ko takkoo lu ëpp juróom-ñaari yoon yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam daf lay bëgg bëgg mbëggeel goo xam ne mbëggeelu xaas la te doo dee mukk lu dul ni di nga bokk ci wal yàlla gi Mawlana Cheikhu Tijaan radiyallahu anhu ne man daawama alayha saban inda annawmi ala taharatin kaamilatin wa firashin tahirin yara nabia sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp ku sax di ko jàng juróom-ñaari yoon booy nelaw ci laab waaye tamit fa ngay tëdd nekk lu laab di nga gis yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam kon yooyu yëpp ay ngëneel la ak yeneen yu dul yi léegi nag ñu sóobu ci jéem a firi jawharatul kamal dafa ne allahumma salli ala allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya e, alam mu ne xamal ni suñ borom subhanahu wa taala dafa dagg ab dogit ci leer ak leer googu nga xam ne dafa nekk ci dayob set waaye nekk loo xam ne lu ñu ñoŋel la ثم أبطن في تلك القطعة ما شاء أن يقسمه لخلقه بباري مجيل دوغي دوو نبوتي لوكو صوب كي مسد لكو جامامي لن لي سدلي من من العلم بصفات الله كي قام نلو يالي واسماء اكي ترم وكمالات ألوهيتي اك متم متك يالام نمو يالله مد دمت وبأحوال الكون اك حالك كون بي wa asraarihi ak i mbóotam wa manaafiihi ak i njëriñam wa madaarihi ak i loram wa fil ahkaami al ak atte yi nga xam ne ñooy atte yàlla muy digle ye tere yi mu jël nag <clears throat> dogit boobu nga xam ne mooy dogitu leer mu doon benn saxuwaay boo xam ne ci lay bëbbalee mboolem li muy wàcc ci yërmandem ci lay bëbbalee mbooleem li muy xéwalee jaamam yi ci xeetu xam-xam ak yërmande moo tax loolu nag nuur leer googu mooy xaqatul moo tax mu ne allahumma yow yàlla salli yàlla nga julli wa sallim te sëlmal muy fanaa'u ak baqaa'u salaatu foo ko déggee rek mooy jeex gi salaam foo ko déggee mooy fanaan mooy mooy baqa ala ayni rahmati ci ki nga xam ne mooy jëmmi yërmande ar rabbaniya bi di ko jóg borom bi jëmmi yërmande bi ko jóg borom bi mooy xaqatul muhammadiya te xaqatul muhammadiya mooy raxmatu bi nga xam ne moo bëbbee ci zaatu maanaam ci jëmmi yàlla ji mu di ko bëbbal ci mboolem wujud gi mu di ko bëbbal ci mboolem wujud bi waaye nag loolu lépp mi ngi tukkee ci jëm yàlla ji wàcc ci moom moo tax kenn du jot yërmande googu ci wujud gi lu dul ci zaatoom moom sallallahu alayhi wa sallama ci jëmmam moom sallallahu alayhi wa sallam lay jógee kon nag jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa ci dëgg-dëgg mën nañ wax ni mooy central bi nga xam ne mooy centre mbooleem xéwal yi mboolem xeetu yërmande yi mooy nandale lépp moo tax euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa ne innama muy wax ju am maana mu ne man maay séddale waaye yàllaay joxe yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ahmadiyatam lay taxaw di séddale waaye muhammadiya toom mooy joxe kon xaqiqatul muhammadiya mooy joxe xaqiqatul ahmadiya di séddale li muy joxe ak li muy séddale nag mooy ijaad ak imdaad bi aarif yi di wax moo tax allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya rahmatu googu dafa séddalikoo ci ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy ifaada maanaam bëbb bi muy def ci wujud gi ala jamii wujudi l akwaani mufaadatun min zaatihi l karim lépp lu yàlla di bëbbal ci mboolem nekkateef yi mu ngi ballee ci jëm yonent bi sallallahu bu sedd boobu waaye li yàlla di bëbbal ci yërmande ci mbooleem ci mbooleem yi tamit mu ngi ba mi ngi bëbbee ci jëm yonent bi sallallahu alayhi kon nag da gis ni rahmatu boobu ñaar la الرحمة الأولى مي إفادة الوجود على جميع الأكوان ثم خرجت من الأدم إلى الوجود مي ببل ديغا يا يالا ببل نكون نيك جنا غيناو بام لين غيني سي مي رحمة غنيك رحمة نيارل بي مي إفادة فيض الرحمات الإلهية على جميعها من جملة الأرزاق والمنافع والمواهب والمنح fa innahu bi dalika yaduumu tamattuha bil wujud mooy bëbbal bi nga xam ne yàlla daf koy bëbbal ay yërmandeem yoo xam ne day jugee ci moom wàcc ci mbindeef yi muy wërsëg njëriñu bi ñuy jëriñu may yàlla di maye lépp mi ngi jaar ci moom kon loolu mooy wundu wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin rahmatu googu mooy bëbal bi yàlla di bëbal ay ay ay wërsëgam ay njëriñam ay asraaram ak azwaatam mu wàcc ci ci jaan kon bu njëkk bi rahmatoog ijaad la ñaareel bi mooy arrahmatul ilahiya bi nga xam ne ngi wundu ay arzaq ak manafi ak mawahib moo tax rahmatullahi dafa yaatu wa rahmati wasiat kulla shay rahm aaya li muy firi mooy sama yërmande gi moo matale ci jaam yëpp maanaam man ma sàkk jaam yëpp jëlee leen ci seen ñàkk indi leen ci seen xam loolu mooy yërmande gu matale gi wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin yónni wuñ la lu duwut nga doon yërmande ñeel mbindee fii loolu mooy aslu yonantu sa alayhi wa sallam ci rahma waaye loolu li mu wudd mooy wërsëg yeeg xéewal yeeg yi nga xam ne yàlla mu koy wàcc ci jaam yi ci moom lay jaar baatu rabbaaniya nag li mu wundu mooy koj maanaam ñu ngi koy fiire koj ak borom bi maanaam dañoo jël baatu raxma rahma idaafa ko ci xadara rabbaniya ndax xadara boobu nga xam ne mooy xadaratu rabbaniya ci la mawjudaat yi yëpp soso moo tax ñu jël baatu rahma idaafa ko adatul uluhiya nag mooy aslu ibadatil mawjudat mooy cosaan jaamu yàlla ak jaam kon ci loolu ngay gisee ni al ilahu huwa al maabud mooy ki ñu war a jaamu bil xaq ci dëgg Mawlana Cheikh Tidiane wal yaquutatil mutaxaqiqati foofu mu def lu ñuy tuddee at tashbihul baliir jël yonent bi sallallahu alayhi wa melale ko wurus wurus wu piir bi ndax yonentu dayob setam kenn mënu koo xam dayob tedd ngaam kenn mënu koo xam dayob yëkkatikoom kenn mënu koo xam moo tax mu jël ko melale ko wurus woowu nga xam ni mooy dëgg-dëgg wurus yi alquran sax wax na ko masalu nuurihi ka mishkaatin fiha misbaax misaalul leer ak yonantu bi sallallahu alayhi mi ngi mel ni benn verre boo xam ne dañ ci dugal làmp leer gi muy leer almutahaqiqa lim ci jublu mooy almutahaqiqatu bi jamii alsifaati wal asmaai al ilahiya allati yatawaqqafu alayha wujudul kawn wurus woowu moo làmboo mbooleem melo yàlla yi mbooleem turu yàlla yi nga xam ne ci la kawnu bi dépendre pour dox kon wa baqiya waraaha min asmaai wa sifaat maa la tatawaqafu li wujudi l kawni alayhi am na ci ginnaaw tur yooyu ak melo yooyu yeneen tur ak yeneen melo yoo xam ne kawnu bi dépendre ci kon am na yeneen yi ci dépendre alxaitati bi markazi l fuhumi wal maani mooy ki peeg bi markazil fahoomi centralu dégg-dégg yi wal ak maanaa yi lim na mu ci wax jooju al mooy dégg-dégg yi nga xam ne suñ borom subhaanahu wa moo koy séddale ci jaamam yi ngir ñu jot dayob maanaa ay waxam te jot dayob maanaa yi attey yàlla yi jot dayob maanaa yi turu yàlla yi jot dayob maanaa melokaanam yeeg maarifa mi kon moom yonent bi sallallahu alayhi moo dajale mbooleem fuhum yooyu mboolem dégg-dégg yooyu moo ko dajale moo tax mu mujj nekk santaraalu dégg yi ndax moom daairam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy daairatul ihaata moo peeg moo tax alxaita huwa sallallahu alayhi wa sallam biha mooy windeelukaay bi nga xam ne moo peeg mbooleem dégg-dégg yi ak nuurikal akwaan wa nuuril akwaan boog maa ngi jégal wa nuuril akwaanil mutakawinatil aadami wa nuuril akwaan ak leeru nekk teef yi nga xam ne al mutakawinati ñi ngi sosu sosu nekk lan al aadami di ko jug doomu aadama lim ci nam mooy al akwaan mooy nekkteef yi nga xam ne ci la yàlla formé ay mbir jëlee leen ci ñàkk indi leen ci am jëlee leen ci ñàkk indi leen ci am moo tax asiyaa yooyu mbir yooyu dafa aju ci xam-xamu yàlla gu njëkk gi lu wut lu muy yeesal di ko amal waaye lu amoon la bu njëkk daf koy feeñal rek moo tax boroom xam-xam yi daal di koy eh, séddale maanaam mais mooy annaha taxruju min al adami ila al wujud lim wundu ci wa nuurika al akwaani al mutakawinati al adami mooy sa leer gi mooy génnee mbindeef yi ci ñàkk yoobu leen fi am kon jëmm yi nga xam ne dañoo sax li leen saxal mooy xaqatul muhammadiya jëmm yi nga xam ne itamit dañ fay ñàkk nga xam ne سبق في علمه أنه لا تخرج إلى الوجود وتبقى في طي العدم فإنه علمها أن لو خرجت إلى الوجود على أي حالة تكون في أي أمر تتكون وفي أي مكان وزمان تقع وما ينصب عليها من الأحكام الهية ضرا ونفعا فإنه محيط بجميعها علما وهو صلى الله عليه وسلم نوره mooy yi nga xam ne amut yàlla tëggal ko bërëb tëggal ko jamono atte ci lii luy lore la lii luy lii la yonent bi sallallahu moo peeg mbooleem xeetu xeetu xam-xam boobu te moom mooy leer gi koy leeral saahibul xaqi rabbaani mooy borom xaqu dëgg ar rabbaani bi di ko borom bi al xaqu rabbaani mooy ma qararahu subhanahu wa taala fi shar'i mooy li yàlla yoonal ci shariatum bii nga xam ne mooy ay atteem yi mu wàcc ci ay mbindeefam ci digle ak tere nan la ñuy tàmbalee nan la ñuy eh, terminer kon su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy kii tëral programme yàlla bi waaye mooy kii digle mooy kii tere mooy kii exécuté yi tamit albarqil astan yi bi muzunil arbaax melxati bi nga xam ne mi ngi bi nga xam ne mi ngi melxati bi muzunil arbaax niiru euh, arbaax mooy bénéfice yi loolu li mu wundu mooy yonent bi sallallahu wa sallam dañ ko misaale melax parq ndax tur la buñ abbal xaqiqatul muhammadiya ngir taqoo bi nga xamne ne taqoog na ko melxat yi di joxe muzunul arbaax moy arrah moy yërmande yi nga xamne mi ngi bobbe baye ko ci hadatul xaqi di wàcc ci jami ñu misale ko asaman ak taw manam xiin ak melax ak taw ويعني هناك فيود العلوم والمعارف والاسرار والتجليات والانوار ودقائق الفكر لينتي نامو anwaari wa daqaiq al fikar liñ suñ borom mu ngi koy bëbbal mu jaar ci xaqiqatul muhammad yi ay xeetu xam-xam yi maarif ak i mbóot ay tajalliyaat ak anwaar ak xam-xam yu sew yi wa ma yantahi ila sahilihi wa gaayatihi min al minahi wal mawahib wa safaai al ahwal ak yooyu yëpp nga xam ne dafay teer si ci ay tefesam ci ay may ak selluk xaal jël ci melaw borom bi subhanahu wa taala ba jaaree ci mën a nekk بوكوشي عارفي المائلة لكل متعرض من البحور والأواني المائلة مويكي جنج لكل متعرضة ولي كيب كوكا من دفاي كونتر مولا دفاي ددو من البحور تي جيجي معناي والأواني أجنبي تعرض فوهو لمشي جبل مويتارة بالتوجه إلى الله معنام كيها خفنا دفاي ددو léeg-léeg di jublu yàlla kooku mooy mooy ki nga xam ne des fois dafay dagg digganteem ak yàlla buxuur mooy xolu géej yooyu muy wax mooy xolu aarif yu mag yi ndab yi mooy xolu wëli yu yàlla yu mag yi kon li jugee ci xolu aarif yi xolu wëli yi ñoo koy taataan ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان accélère yi nga xam ne mooy melxati yi nga xam ne mala te feesalee nga ci bii ci leer googu kaw nakal xaayit sa gi nga xam ne nekk nga ko di aji peeg bi am kinatil makaan yi ci mboolem bërëb yi am ci kaw kawnu gi nga xam ne moo peeg mbooleen mbiru yàlla yi nekkiteef gi peeg mbooleen mbiru yàlla yi nekkiteef boobu nga xam ne yàlla moo ko taxawal ci kanamu mbindeef yi mu nekk seen njiit fees ak lépp yàlla kooku mooy yonantu bi sallallahu alayhi kon yonantu bi la tuddee fii al kawnu tuddee ko al makaan ndax mooy ki gàttandu leerab yàlla te moom moo koy joxe اللهم صل وسلم على عين الحق اللهم يا الله صل جلل وسلم تنسلم على عين الحق في جمي دق دي عين الحق نك ناري اطلاق لام بنيكي بي موي الحق من حيث الذات موي حق بيغا خامني لي نتي جوبلو موي جمي يا الله جوكاري ñaaral bi mooy itlaaqu sifati zaat yi nga xam ne ñaareel mooy booyal melow yàlla yi ci jëmm yonent bi sallallahu alayhi kon da ngay gis ni itlaaqul xaqi min xaysu zaat bi ann alxaqa yuqaabiluhu albaatil fi kulli wajhi jël xaqu labal ko ci jëmm yàlla ji nag xaqu toujours dafay janoog li nga xam ne mooy neen dafa ko fekk daal ko kon da ngay gis ni xaqu moom maxdu la lu set wécc la te mooy zaatullahi aliya lu dul moom neen la maanaam lu olof yi di wax sax lu dul yàlla neen la loolu la waykat bii di Labiid euh, doon doon melal te yonent bi sallallahu wax na ne Labiid li mu wax dëgg la de ala kulli shay'in maa xala llaahu maa xala llaahu baatil dama ne fi dul yàlla rek neen la te yonentu dëggal na wax jooju kon da ngay gis ni euh, wa haada laa yutlaqu alayhi sallallahu alayhi wa sallam id hada al itlaq an zat al muqaddas maanaam melowoo wu njëkk yi nga xam ne dafay dellu ci zaatullahi al aliya loolu yàllaa ko melowoo kenn du ko jox yonantu bi ñaareel bi nga xam ne nag yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam dafay melo melokaanu yàlla yi jël turam yi mu bëbal ko ci moom kooku mooy melow yonantu sallallahu alayhi wa sallam mooy sifa bi nga xam ne alqaim bi surati al ilmi al azali moom mooy taxawee jëmmi xam-xamu azaliyatug yàlla gi wal machiatul ilahiya ak coobarek yàlla wal qudratul rabbaniya ak kattan ak wal xukmul ilahi ak atte yàlla yi al azali yi fi kulli shay mooy exécuté lépp kon bii nag la ñuy tuddee xaqiqatul muhammadiya lu am solo la pour ràññat la bi nga xam ne tatajalla dafay feeñee min ha ci moom tukkee ci moom uruusul xaqaayiqi jàngu naayu dëgg-dëgg yi tajalli li muy firi mooy zuhur mooy feeñal uruusul xaqaayiq jàngu naayu dëgg-dëgg yi li euh, ulamaul balaaga moom la ñuy tuddee istiaara baliga maanaam dañu badiyan dañ koo àbb abbin bu neex sax jël wurusu gàngu naa yi melale ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag lim ci wund mooy euh, loolu lim wund mooy dañu dañuy xam ni buñ demee ba xam boog ne xaqiqa bu ne dafa tallalu te amul dayoo ci xeetu xam-xam yi ak maarif yi ak asraar yi ak mawaahib yi ak fuyudaat kon ku xam ni xaqiqa bi moom dafay tàllalu <coughs> bu yeggee ci beneen maanaam xaqu bu yeggee ci xaqiqa dafay far xaqiqa bi taxaw di xaqu boo ko toppee ci xaqaayiq yëpp noonu lay demee kon da gis ni kon kat <coughs> kii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, li mu làmboo ci ay xeetu xam-xam maarif ak asrar ak i mawaahib ak i fuyudaat loolu moo waral ñu tuddee ko urushul xaqaiq li anna al arsh ndax aras muxiitun bi ma fi jawfihi min jamil maxluqaat aras mooy li nga xam ne moo ëmb léppi mbindeef yi moo tax aras ñi koy xool ci asamaan ak noonu ñi ngi nax seen bopp dëgg Mawlana Cheikh Tidiane nee na aras mi ngi ci nit ki kon <clears throat> loolu beneen xam-xam la duñ ci dugg léegi nag euh, arsh huwa gaayatu rifa mën nañ ko firee dayob yëkkatiku wa sharafi ak tedd nga ci biir mbindee fi te loolu mooy dayob yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aynil maarifi jëmmi xam-xami أي عين المعارف الإلهية المفادة على الخاصة العليا من النبيين والمرسلين والأقطاب والصديقين والأولياء موي jëmmi xam-xamu yàlla yi nga xam ne moom lay yonantu sallallahu alayhi wa sallam di bëbbal ci tànneefu yàlla yu kawe yi ci yonantu yeeg mursaluuna yi xutbu yi ak siddiqina yeeg awliya yi lii lépp mi ngi gongee koo ci xaqiqatul muhammadiya te wàññiwu dara ci li yonantu bi sallallahu alayhi ëmb ci xaqiqaam boobu daf koy bëbbalee maanaam yàlla koy bëbbalee mu jugee ci xaddatul xaqi jaar ci xaqiqatul muhammadiya mu joxe si liñ ciy joxe te ànd ak ni dara du wàññeeku ci moom moo tax mu mën a nekk xaatimul anbiya ndax jaar yi naan waayam ji la ñuy naanee te moom naanut ci naan waayu kenn aynil maarifi al aqwam yaani annahu jaarin fi majaaril adlil ilahi al aqwam bi jub kocc mooy dafay dox ci màndu teg yàlla amut fenn fu muy dëng dafay dox ci màndu teg yàlla te baat boobu di aqwam dafa am ñaari maana maana bu njëkk bi mooy istiqaamatu mooy ki nga xam ne dafa tegu ci yoon wi jub koc ba tey mooy firi xam bi ñëw ci kanam ñaareelu maanaa bi mu jëm ci li ñuy tuddee siratu tafdil min kamali iqamatihi li amrillah sira ñu jël ko ci sira ak ngëneel goo xam ne yàlla daf ko ko defal ci matu taxawaay bi mu taxaw ci mbiru yàlla yi ak matale bi mu matale xàqu yàlla yi moo tax baatu ahmad sax loolu lay firi ahmad mooy ki nga xam ne taxaw na ci sant معتصما صلى الله عليه وسلم موي اكمل الخلق قياما باداب الحضره الالهيه موي كي جن تخاو تي مبيندي في تي تيجنو تيب يالا بي مو خام تي خام خامم لا ولا تي جيفوم ولا تي حالام ولا تي موسوم ولا تي منزله ولا تي جيكوم ولا تحقق دغ جيم ام ولا اجو جيم اجو تي بروم بي سبحانه الله كون مو غنا مات نيب صراطك التام الافقام سيون يي خامني التام موي يون وي مات sëkk yoon yu mat sëkk nga xam ne amul benn déngi déngi amul benn dagg-dagg eh, al asqam bi maana al kaamilu fi l istiqaama yoon wu jub kocc noonu la ko Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu firee gaa yi nag ñu ngi ciy wax ay wax loolu détail yooyu duñ ci dugg allahuma salli wa sallim ala talaati alxaq bilxaq yow yàlla maa ngi lay ñaan nga julli te sëlmal ci feeñuwaayu xaqu ci xaqu foofu nag talaatul xaq bil xaq ñaari maanaa la am maanaa bu njëkk bi mooy fiihi talaatul xaq lahu sallallahu alayhi wa sallam min azzaati aliyati almuqaddasati bil xaq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am feeñuwaay maanaam tajalli bi yàlla def ci moom mu jugee ci zaatul aliya waaye ci ci moom rek la te te tajalli boobu moom lañuy ñuy tuddee ahadiyatu yàlla def ko def ci biiram ànd ak ñu yonent bi sallallahu alayhi fa foofu dara nekk fa dara duñ fa gisee dara ndax tajalli zaat boobu nga xam fenn zaatul aliya boobu tajalli boobu mu def ci boppam dara du fa nekk moo tax yonent bi sallallahu alayhi moom am na tajalli boo xam ne tajallati zaatu bi zaati wa tuluha anha laa an cheyin dunaha zaatu dafa feeñ daf ko feeñee daf ko feeñee feeñal ko walees lu dut moom tax moom mooy sabab ak feeñu lépp moom yonent bi sallallahu alayhi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa kon ci sababam la zatul aliya mana feñale feeñalee muhammadiyya lolu lu am solo la lolu moy mana talatil haqq xaq bil haqq feñale deug ci deug manam yàlla matam gi mu ko feñale ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñaareelu mana Happiness TV, la joie du cœur.